Ousmane Sonko constituer l'aile dure de l'opposition l'aile radicale mhm. tey jii nii euh, bu Barthélemy Diaz jëlee décision bu sage bi toog waxtaan Ousmane Sonko se retrouve seul et c'est ce qu'il avait dit ne woon na Macky Sall dialogue bi loolu rek moo ko tax a jóg isolé ko Ousmane ne sera jamais seul vous êtes encore avec lui il parce que ñun luñ ko teg ànduñ si d'accorduñ si il ne sera jamais seul leen delloo si xel yi ñu àndandoo xeexandoo ensemble libérandoo suñu leader ensemble. mais Madiop Madiop est-ce que li nga wax ni mën na nekk. si jamono fos fossé bi creuse creusé wu na de. waaw parce que parce que ñoom ñoo sooke wax bi mooy commencé. depuis que baat invité Macky rek commencé nañ ko sànni. ah mais yéen tamit vous n'êtes pas à l'aise de. <laughs> mais mais ah. loo toog ñuy saaga sa kilifa nga noppi loo ko même boo koy def malgré yow sax di nga ko def. Mm-hmm. mais li am soo tey mooy ñoo bokk suñu yeewi askan bi. askan bi yaakaar si ñun nañ leen àndaat bokk ndey bokk bàyyi yii mënu ñàkk si ànd. est-ce qu'on peut encore parler de Yewwi Askan Wi. si Yewwi parce que Yewwi seen contrat est-ce dem législative dem présidentielle. ku ne demal sa bopp ko fàtte mais tax mu jeex. ñu ne bu ñu demee ku nekk sa bopp. ku leader bi bi génn deuxième ñëpp waa Yewwi jàppale ko obligatoirement. parce que sànq Barth il a même fait des menaces à peine voilées nee na bu kenn fàtte ne deuxième tour mën nga soxla sa morom. waaw loolu ça veut dire que ne. bu mu ñaaw jamono ji daa rafet. su fekkee voilà su fekkee ñi la continuer ëllëgee mun na yàq lu bari. wala mhm. wala continuer nag parce que si charte bi ñu signé dañu ne ñu ànd local ànd législative présidentielle ku nekk dem bayal sa baay ku dem deuxième tour obligatoirement. candidat yooyu yëpp lañ lay jàppale. mais am na lu xew ma jóg parce que sànq bi condamnation Ousmane Sonko bi génnee. werante yi tàmbali na dina bokkati dootul bokkati il perd son éligi éligibilité j'y arrive euh, ñi nga xam ne ñoo jege Ousmane Sonko dëgg génne nañu communiqué dénoncé ko mm-hmm. ñaawlu ko mm-hmm. ne ko ñi ngeeg yow mm-hmm. ku ci mel ne Mimi Touré def na ko ku ci mel ne Déthié Fall def na ko ku ci mel ne Bougane Gueye def na ko yéen taxawu ana si mais wax naa la ko man ni ne la ñun duñ ko def d'accorduñ si ànduñ si rafetluwuñu ko te président Ousmane dafa war a bokk président Sonko daa war a bokk. actuellement juristes yi déggoo ñu ci wax ji parce que am na ñoo xam ne nee euh, plus de six mois avec sursis lay perte am na ñoo xam ne nee nañu six mois rek dafay perte donc xëy na fekk suba dañu ci gën a am lu ñu leer euh, mais dans tous les cas même Pastef jamono am na ñoo xam jàpp nañu ne Ousmane Sonko moom gars yi nañ ko loolu yéen. lu mën du seen bëgg-bëgg. lu mënta xew waruñu ko écarté et puis. même bu tooñee tamit. non nit nit bu. tooñee est-ce que waru leen bàyyi loolu noonu. non nit bu tooñee systématique boobu noonu non nit bu tooñee mën nañ ko corriger mais comme candidat la à l'élection présidentielle peine bi fekkee da ko war a da ko war a tane mu bañ a dem diis na si moom donc pour man. nekk war ñoo jiite waxuma waxuma mu tooñ ñu ñu faral ko waxuma loolu de. Mhm. même bu tooñee nit tooñ na fi ñu jéggal ko. dafa ak avertissement mais day fekk mu jéggalu wane intérêt. est-ce que mais xam ne yow ki nga ki jàpp ne moom moom nga tooñ. Euh, mayoo ko dara depuis loolu wane woo benn. kii tamit est waxul Imam Mbaye Mame ne ko erreur la. mosu ko wax est-ce que. boo ko waxoon kon affaire yam fi. non pour man pour man pour man yu bëri mun nañ ko waxtaanee ci suuf moo tax waxtaan baax. waaw moo tax waxtaan baax am yoo xam ne du xol moo koy faj. Mhm. xel moo koy faj. président Ousmane Sonko avenir la pour ce pays. ci naka. parce que la koo xam ne lu mu dee. am xam ne yaa ngi ci am na am na ñu ko bëgg nekk en conflit mais loolu ça ne kenn. loolu nag moo baaxul fa laa waxee la moo tax waxtaan baax waxtaan dafa baax. gis nga ñu jege président Sonko. dañ ko war a jàppale. gis nga sa kilifa yaa koy dimbali. ñoo ko dugal ci li mu nekk. yaa koy jàppale. boppam est-ce que génn sa kilifa yaa ngi koy jàppale. sa kilifa toll foo xam ne mun na ñëkk yaa koy delloosiwaat waxtaan ak moom. mais est-ce que ñu ko wër. mais ñu suñu kilifa nañ noonu. bon wóoruma parce que on que ñoom ñëpp dañoo xaw ah. mooy loolu mooy loolu mooy kilifa boo ko amee. yaa koy ñàkk. parce que sànq euh, j'aurais même aimé avoir ça sous les yeux Abbas Fall réagir na moom it attaqué na Barthélémy Diaz hmm. te Abbas Fall on sait tous que mook Barth vraiment c'était très beau dafa rafetoon en fait bon, c'était parce que Barth moo ko njëkkee aussi sànq am na lu mu wax ne ñoom bu ñu amoon candidat bu mën a nekk maire de Dakar kon dinañ ko samp mais c'est la vérité <laughs> neexul dégg mais dëgg la Barth ku mu demaloon Dakar gañe la loolu la wax sànq mais mooy dëgg aussi moo tax Abbas aussi riposté na non maanaam question réponse yooyu ping pong verbal boobu aussi Abbas du le maire mooy premier adjoint Barthélémy mhm. ànd leen ngeen liggéey ñu jàppante mën a nekk si mën na nekk gis nga lu mënul nekk amut lu mu metti metti waxtaan lay mujjee mhm. mais ñi est-ce si dinañ waxtaan dañuy waxtaan dara yàqu yàqu fi qu'en pense Khalifa Sall wala waxtaanagu si lan si ci li xew nii attaques yi mu subir euh, riposte Barthélémy Dias si Khalifa ñoo nekkoon démb rek maanaam tournée ak samedi dimanche ñu ngi tournée yi parce que dara umbu ko loolu baata wax sànq mais Khalifa moom nit la koo xam ne ndeysaan dafa sedd. Mhm. dafa sedd loo ko wax rek mën noo garaawul yàlla baax na mais nag pour man du wor ma du teggin ñu koy teg yenn kàddu yi ci kawam yàlla man rafetlu ma ko. Mhm. ma ko du teggin du wor ma ñu koy teg yenn yi parce que tegul ci deru kenn kàddu yu ñëw. waxul même bu nga présentation commune. Mhm. daf ko jox xale daf ko jox cër bu rëy la ko jox. pour man lu mënti xew na ku nekk défendre sa leader. mais ci discipline